alors ñu daal nuyu kilifa Pa Ousmane balaa nga ñëw fi mu ne nii xam naa ne yàkkamti nga ko kilifa ñoo man mbégte ànd ak yow ci euh, plateau bi ginnaaw boo nuyoo ba noppi sa jàngat ci sortie bi nga xamante ne Ousmane Sonko amal na ko démb. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu sénégalais yëpp. Mm-hmm. yi nekk euh, ci réew mi ak yi nekk mm-hmm. <laughs> Maroc. waaw ba pare ba pare fixé fixé Pa kaw bii lo bis bi da ko doon xaar. PCA. ma franchement dañ am benn vidéo bu Maroc am lañ ma envoyé waaw Ousmane toj na Maroc. dëgg na ko ba mbokk kay. dootu dellu de waaw parce que defkat la. Mmh. def kaal la lan lay demee. non xala da nga comprendre stratégie bi ñu def contre feu lay def Kaolack bi lay bañ mu feeñ. non Kaolack moom maa ngi fa woon moom sañoo faa am nag li ñu dund ci Pape Moussa sañ ko dund ci aw kilifa. damaa crevé. non dafa paan non crevé daa paan. ah ngoone gis na la. wuyu ma maa ngi jàppale. non du ah. crevé bi mais du wax ah. dara. réew mi li fi wax gum daa bëri rek doy ñu sëkk. Pape bi am démb boo ko tegalee ne. waaw koy écho ba beneen. kii naqar la fanaanoo. Hmm. nañ ko bàyyi mu ñëw wax ñu lan moo tax mu fanaanoo naqar. Euh, am na lu ma ci xamoon. li la da nga may baale pour sa téléphone tuuti rek ci ah, kanam. benn ngi nii nenu baxal la. ñaata nga ko jëndee. 125. <laughs> nga ko jëndee tonton ma ko jaay 125 waaw ñu baxal ba pare. waaye mayu poobar nag. waaw buñ bu la mayee booba rek yooyu ñaata. xam naa ci lay jar fanweer dañ la koy fay non non du jar fanweer nen jaru fanweer. ah dañ la koy may. peut-être ay secteur la mais suñu secteur ñun 125 m'a envoyé sa sama xol bi dafa naqadi ma fanaanoo ko xëy. dama tax sa xol naqadi kilifa pousse mu ñëw ci kanam. mais ki dagg sama xol. kan la mooy cœur brisé. kan la. cœur brisé. waaw Aïssatou wala Ramatoulaye. cœur brisé xaw ma ci mais cœur brisé. waaw. vraiment Fabrizio actrice principale bi Ramatoulaye la ak Nefertiti Nefertiti mooy ku mujjee ñëw. mooy jeegu naar. mooy ki ki gën a wax jeegu naar. jeegu naar ci naf nef non non man Aïssatou laa xam hmm. na ci koo xamante ni day xam naa ni euh, bu dul feeñ euh, moo mooy scénariste bi. Hmm? moo ko bind. Hmm. waaw moo bind. ki Cheikh Bara doon wax la wala. moo bind de euh, mooy scénariste cœur brisé. mami xanaa xam nga ki muy wax. xam nga cœur brisé mooy ku xolam yàqu. nee na ma na ma xam nga ki muy wax. mais sérieusement <laughs> euh, ñoom Macky Sall après laay ñëw ci ñoom. kon ñëwal ci cœur brisé ba pare. parce que am na loo xamante épisode la jalousie. sénégalais yi nag ñoo ko war a fajal seen bopp. parce que deux mille douze ba deux mille vingt quatre ñoom Macky Sall li ñu doon def ak li ñu def lu ci bari bari bari bari bari nëbbuñ ñu ko da ko doon gis ni jaxaran mm-hmm. mais quand mm-hmm. euh, amuñu woon ñu toog ci kaw gis les chiffres exacts ñu ko wax comme ni ko gouvernement bi defee démb mm-hmm. loolu moo ñu umpoon ñaata la ak naka lañ ko defee mais nous tous xamoon nañ ni ay milliards mu ngi daw ci réew mi te milliards yooyu du du lu économie bi di génne ñu koy jël di ko détourner mais des milliards yoo xamante ni dañ ko doon emprunter sur le dos des Sénégalais mais man je pensais que ni au moins soo demee bay lekk ci turu nit di nga ko yëgal nit ki ne ko demoon naa lebi ki seen tur waaye leb ci turu nit ba pare nëbb ko nit kooku lekk ci turu nit mu war a am transparence ñu jël xaalis bi ne mu ngi ci trésor waa trésor ma ko war a denc sax yëguñu ko xamuñu ko duggut ca kees ya déedéedéedéedé ay vampire non ñii ils sont ñii ñii soxor gi ñu soxor ñii dañu soxor ils sont méchants lii soxor la mais ki leen gën a soxor mooy ki nga xamante ni il est conscient bokk na ci bokk na ci xam na ko parce que gis nga Macky sàll am na te am na ci lu ma ne ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ki nga daan xamante ni wala ñi nga daan xamante ni dañuy xëy suba yooxu opposant guddi ñu dem euh, fenêtre Mermoz ah. ñu jox leen seen wàll ci ci ci ci càcc bi ki ci gën a ëpp làmmiñ jamono ji il en fait partie cœur il en fait partie te s'il n'arrête pas. Hmm. wallahi lazimul karim euh, parce que nag doy na quoi basta. menace non basta quoi non basta. mënu leen nekk di comploter le Sénégal pendant ans soo bi neen kàcc kese tappalay kese. yow ci sa bopp boo toogee duggaat ci sa biir wax nga interroger wu xam ni sénégalais yi dofuñ ci nga jàpp leen xam nañ kuy tricher xam nañ ku dëggu xam nañ ku dëgguwul ñaata ak nga topp sénégalais yi naan leen pare na leen ba ñu bañ parce que xam nañ ñu jubuloo sàcc nga yaa yaag ñi fi yaag sàcc yi fi nekkoon yéen a yem lan ñaa loo fi créé ay ay ay ay kii yi defar koppar nga xëy sénégalais yu bare bare bare bare gisatuñ seen xaalis nga leen dem na fayit remboursé woo leen jooni jooni du ma tudd ñu ngi dégg te xam nañu xam nañu bu baax a baax a baax tappalekat benn tappalekat bi nekk ci réew mi seexlu naa tudd turam tudd turu i Sall sax moom moo a gënal tudd turam parce que mënuloo boole sàcc fen tappale comploté ba pare taxawaat di bëgg di di di bëgg di bëgg di di di di golo gololu yow boo waxee yaa gën a ñàkk xuram ci réew ma nga ne yaa gën a ñàkk xam-xam ci réew ma nga ne soo waxee yaa gën a waye di ci réew ma nga ne yow boo waxee ñépp ne ca mbay tu dois la fermer nga nekk góor nekkal góor suwa sama waa ji te xam nga ni bu baax a baax a baax yow laay waxal mm. góor da ngay doon góor sax góor saf góor ci forme saf góor ci fond. Eh. non mais sérieux parce que à la fin yéen yëfu jigéen la jigéen ñi sax dangay gis ñoom ngóone léegi c'est mm-hmm. bu ñu waree nekk jigéen ci forme dinañ ko nekk mais bu ñu ko waree nekk ci à l'intérieur dañuy taxaw doon góor. xeexal Sénégal teg lu xeere teg lu xeere mais yow nga nekk fi ñëpp xam ni que ni tu étais un un la nuit tu tu tu tu euh, euh, di dem fenêtre Mermoz. baax na. guddi gi te su ma la nee Massaly xam nga bu baax li may wax. Ah, balaa ñuy dem am na ko fi waxoon protocole de Kër Mor Ndiaye. xaw ma protocole de xaw ma je sais pas quoi. dëgg la mais en tout cas. sénégalais yi ci boppam ñoo war a taxaw ne ko basta. ñun nekkuñ ci cinéma nekkuñ ci théâtre Mhm. la comédie là dafa war a doy xaaral woy système bii la Sonko defoon je vais l'emprunter pour exister wala pour kii nii ça va pas marcher yow sénégalais yi yow ñoo yow jubluwuloo sénégalais yi mhm. on va jamais t'épouser dalee la dëddu et nous avons fini de te le montrer à maintes reprises amal jom oui oh. yaay non si amal jom sama bon lu ñu ubbi la nag euh, maa lay xaar. bu fekkente ni bëgg nga yow front rek maa ngi lay xaar te dox. Euh, ñoom Macky Sall. oui waa Maroc ak képp ku àndoon ak Macky Sall. Mhm. kilifa may ma tuuti ma naan ngir yàlla ma naan. là je parle avec euh, le cœur brisé. le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Mhm. avec son premier ministre je ne regrette pas lan moo tax ma doon fight pour que un jour nous allons avoir au pouvoir des dirigeants yoo xamante ni dinañ ñu saytul suñu alal dinañ ñu waxal fu mu jaar ba pare dinañ ñu ko sàmmal lenn moom xam naa ni c'est fini jeex na tàkk mooy Sénégal moom kenn dootu fi sàcc ci kàttanu yàlla ak mbaaxam wala kenn wala bu kuy sàccit bu fekkoon càcc mi cent franc la euh, dina def euh, dina nekk dix franc parce que des fois dañuy takk sax ay nibi ninki nibi ki mooy invisible ah waaw dañoo tàmm sàcc ba mën nañ soppali ku takk yi meles sax dugg sàcc génnaat <laughs> mais dinañ surveiller le euh, lépp lu ñu mën ak lu ñu mënul donc ñu am des gens courage tout à l'heure dama lire kenn ne Sonko dafa bàyyi wax te te te xawma je sais pas quoi mais il faut arrêter yéen bàyyi leen naa fekk waay ñii buñ ñii buñ leen dénkee ne leen saytu leen wax leen ñu